ñëw si yow si kanam euh, soxna euh, Koddo euh, tàmbali gi ci ci njàngum làkk gi tey buñ doon xayma naka la ñuy def ba mu mën a nekk période boo xam ne buñ fa yàgg buñ fa àggee dana doon njëriñ maanaam mu nekk lu ñuy jëfandikoo moo xam ci administration moo xam ci l'école beeg lépp mu nekk loo xamante ne dina gën a am dayo ci réew mi. may ma tuuti ma leeral lii après je vais répondre Cheikh Anta bind na ni. ci livre bi Alpha Gueye bind Alpha Youssoufa Gueye muy géntu saa Afrique euh, Cheikh Anta bind na ni làkk mooy li gën a tënk mbatit looloo waral mu jàpp ni fileeg jëfandikoo nu suñu làmmiñ du jëm kanam li waral loolu mooy ne li ëpp ci réew mi ñoo bokk làkk yooyu nàmp leen dégg leen di leen wax jëfandikoo suñu làmmiñ mooy tax njàngu gune yi du jafe te it xam-xam di law ba daj fépp mhm. léegi tey jii comme ni ma ko waxee sànq xale yi suñu jàngee ci làkk yi nga xam ne ñoom moom la ñu xam dinañ gën a gaaw a réussir. léegi su loolu weesoo ñi nga xamante ni dañoo nekk ay apprenti di liggéey yor yenn métiers yi jànguñu français li ñuy def li tax ñu mën ko mooy xëy na yàgg xool ci yàgg a xool gi ñu dem ba mën. Mhm. mais léegi par exemple je prends l' exemple des mécaniciens xam nga avec l' avènement des voitures électroniques taf yëngal amatul. su fekkee jàngoo mu ñu joxe oto jàmbur da koy yàq. léegi nga xam ne te jàngul français. dégg na soit wolof wala pulaar wala séeréer wala et cetera wala leneen ak leneen mhm. loolu nga xam ne jaan loolu nga xam ne moom dégg na ko mën nañ ko cee former tàggat ko ci su ko defee moom dina mën a liggéey auto électronique léegi su ko mënee bu liggéeyee ñu fay ko suñ ko fayee mu yóbbu ci njabootam loolu du nekk sutura mhm. du indi koom du wàññi taxawaalu ak jëw ak xol bu naqari dëgg la donc langue nationale yi ñu jëfandikoo ko sur les domaines de la vie jëm kanam la sur les domaines de la vie mhm. te langue nationale yi aussi lépp la ñu mën cheikh li muy wax moo fi am làmmiñ gàttul xel mooy gàtt làmmiñ gàtt parce que nit kiy wax gis-gisu àddinaam fi mu yem xam-xamam fi mu yem foofu rek la ay waxam mën a yem mhm. léegi nag su fekkee yow jàng nga am nga gisu àddina bu sori gis-gisu àddina bu sori say wax aussi dina mën a egg foofu kon làmmiñ gàttu langue nationale lépp la ñu mën mën nañoo yenu xam-xam mën nañoo yenu leneen ak leneen mën na ci jàng mën na ci dañu ci la ñuy jëm kanam